waaw euh, mais vous savez euh, euh, Aliou Cissé a fait si mu ngi ci huitième année ah. sept sept ans huitième année au niveau la tête la à la tête de donc c'est record lu ko fi bàyyi aussi c'est parce qu'à chaque fois il atteint ses objectifs même je pense que s'il n'avait pas même atteint son objectif am tey football bi li gis li mu mooy hier. xam naa nañ jëm Guardiola a gagné la Ligue des Champions. ok donc na na ok donc wala la durée dafa wan ne nii tey mooy loolu mooy mooy joxe ndam donc moi je pense que tax ma parce que xam na boobu léegi ne yu bare jaar nañ ci loxoom euh, donc xam na ñii xam na ñaar xam na donc comme tu dis aujourd'hui Euh, je comprends com comprendre na euh, la frustration de Mbaye Diagne et aussi la frustration aussi de de des, des Sénégalais et parce que aujourd'hui quand même ñu ñëpp ñoo bokk football bi aussi ñëpp ci am xalaat ñëpp ci am commentaire yu ñu ci joxe. Mm-hmm. et Sénégalais yi mënuñu comprendre Mbaye Niang meilleur buteur euh, quand même ça quand même c'est yëpp te Aliou du ko jël mais mais damay fàttali ni euh, demoon nañ Coupe d'Afrique ñoom ñaar. 2019 mm, waaw 2019. Mm-hmm. peut-être est-ce que am na fa loo xam ni. moo tax kooku man xaw ma. Oh, en fait en fait Aliou championnat yooyu ñoo gën a relevé fi nga xamante moom la bokkal poste yi ñoom tam ñu ngi marqué loolu Aliou Cissé ko aujourd'hui quand nga xool Habib Habib Diallo aujourd'hui il pète il pète le feu mm -hmm. euh, aujourd'hui Boulaye aussi il pète le feu donc euh, euh et puis ces ces derniers temps boo xoolee ñoom la andi et il rajoute que même poste bi Ilimane. Ilimane aussi ñoom la andi. mën na fa jouer Sadio Mané mën na fa jouer ah, Ismaïla ah, Ismaïla donc voilà après Liges mooy wax Liges nag question de feeling la. Hmm. question de de relation entre joueur ak entraîneur. Hmm. et question d'équilibre de groupe entre entre joueurs donc. Ah, mais aujourd'hui euh, kenn mënul nier que ni Mbaye Diagne mérite une sélection. mais y a y a une sélection et avoir aujourd'hui la que la, la, le sélectionneur avoir la possibilité de prendre que des attaquants à un moment donné il est obligé day day day day day comment ça s'appelle day équilibrer groupe am comme il a dit comme ni ko ni nga wax noonu la Aliou Cissé wax ni tëjlu ko bunt bi man ce que je conseille à Mbaye Diagne na na na continuer liggéey ça sert à rien mais vraiment je le conseille de faire des déclarations fracassantes ça sert à rien parce que football dafa gaaw pour x raison ëllëg mën na ko arrêté mën na ko waat waa SDG donc donc ma ce que je le conseille parce que aussi foofu il faut nga fay dimbali suñu joueurs yi aussi quoi parce que des fois euh, duñu la jël say say jegewaale say ñi euh, wax la yoo xam ni après da ngay comme di daal Benzema di da ngay fermer porte bi donc ça dama ciy conseiller joueurs yëpp que nañu def attention ci déclaration yi parce que des fois di timmee le sélectionneur mal à te même la fédération sénégalaise mal à l'aise pour que ëllëg ñu war la mën a. yow loolu mos na la daal en tant que sélectionneur. non euh, xam nga tax mosuma daal parce que un sélectionneur n'a pas droit d'être rancunier. Mm-hmm. non un sélectionneur ne doit pas être rancunier.